xam ne am na solo lool surtout nag candidat ki nga xam ne moo di Amadou Ba parrainage yi nga xam ne wax nañ ne am na ko muy 3 millions de parrainage mu nekk loo xam ne guleet muy door a am si Sénégal ngay wut ay parrainage am lu toll si 3 millions de parrainage mu ngi door a am nañ ne kon moom euh, Babacar Touré sax muy wax que ne lool nag nekk na loo xam ne doy na waar lool na tamit si kii di parrainage su kii non candidature kii nga xam ne nag moo di Bassirou Diomaye Faye te nag eh, kii di président Ousmane Sonko daal di wax gars yi ñu daal di koy parrainer daal di koy samp ndax kat mën tamit nekk ab candidat waaye moom Ousmane Sonko sax si fàttali tamit yëkkati woon na ay kaddu dénkoon ko ki nga xam ne nag moo di dàmboo eh, si téléphone waxoon ko ne que nag mosul wax que ne nag maanaam ñoom du ñu am li nga xam ne moo di plan waaye tamit daal di koy dénkoon tamit ne ñun. man usman Sonko tamit candidat la te retirer guma ben yon ci nek nekk li nga xam tamit moy candidat pour ñi nga xam nak ñoo di sénégalais yi ndax nak ñom ñoma tamu te ñoma sopp bëgguma kon duma wor ben yon kon ba ni ni ñuy wax ak yeen mom candidat la mom usman Sonko ndax kaddu yoy non moko ko ki di dambot bi nga xamé na da doon jokk ak mom ak li nga xam nak modi téléphone wa eh, avocat Ousmane Sonko yi sax nag ñoom don nañu nak daal kan di defaat ak ab recours ndax kat ñom ba tay nak dañu gëm seen candidat bi di Ousmane Sonko ba légui dafa wara bok si élection yi ba ni ni ni yoon droit génneegu ko si élection yi manam bu doon suba la élection yi ni ki di Ousmane Sonko daf ci bokum motax ñom avocat yi ñu benn yoon ba tay ji sax nak doon nañ defaat ab recours fële si cour suprême ndax atte ba nga xam nak won nañ ko ba daal di niilal euh, saba si Faye bu Ziguinchor atte bi nga xam ne defoon na ko boobe atte nag jaarul yoon moo taxoon ñoom avocat yi sax ñu daal di demaat fële sa cour suprême nag ngir daal di dugalaat ab recours mu nekk tamit ay révélation yoo xam ne kii nga xam ne moo di Babacar Touré àdduna si mu nekk révélation yu am solo di leen jaajëfal tamit si topp bi ngeen ñuy topp bu leen fàtte di abonné bu fekkee ne gan nga si chaîne bi bu fekkee ne tamit yàgg nga ñuy suivre bul fàtte di like di commentaire jaa ngeen jëf ba beneen yoon